amale ko ci kër eh, Serigne Omar Bousso xalifab Serigne Mbacke Bousso ci Gédé Bousso ñu jaajëfal bu baax a baax bokk yi nga xam ne yónnee nañu ay kàddu ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci màggalu Touba gi woote màggal gi ak leeral taxawaayu soxna Astawaalo ci digganteem ak sëriñ Touba ñu dëg malaat nag bisu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu fas yéene yëkkatiwaat ay kàddu jëmee ko ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi ñu maa si déglu Serigne Omar Bousso ak mu jëm ci wàllu gàmm gi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani barke Cheikh Mamadou Muntaxa barke Alaaji Mbàkke Buso maa ngi nuyu mbooloo mi ñëpp te leen woon ci turu suñu Mbàkke Buso ndax gàmm gii moo ko daan wooteel boppam ñu daan kii bi ñu ko daan def am na campagne boo xam dañ koo tegal ci weerandaa bi nga xam ne foofu lay ba bët set kii bi da nga koy fàttali ñëpp fu dongoon nekkoon wala fu mbokk nekkoon te bëgg loole suñ mbàkk daan def ñu dundal ko maa ngi ñaan ñu dundal ko fii ci bés gàmmo bi ci këram gi daayira daayira Muxaddamatul Xidma loolu maa ngi leen di woo ci njàng mi surtout suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jàng xasida ñun ñëpp it maa ngi leen di ñaan ñu def kuréel bi foofu ci kër gi ndax ab taal bi amul lu may liggéey ak xasida yi gëm Sëñ Tuubaa waaw ma leen koy ñaan bu baax ku fi ñëw daal maa ngi ñaan suñu borom fajal la bépp aajo ci dara yonent bi tax suñu mbàkk daan ko woote. jërëjëf mbokk yi loolu mooy wooteeb bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Touba Xaadimul Moustapha daan ci soññe sëriñ bu Bousso daan ko woote fii ci Gédé. noonu mu ko waxee ci këram gi daan ko fanaane ba bët set wicc loolu nag moo tax sëriñ soo Bousso xalifab sëriñ Mbacke Bousso di ci woo booleem koo xam ne sëtu nga ci sëriñ Mbacke Bousso ak noo ci sëtoo mi ngi la koy soññ di ci soññ taalibe yi nga xam ne seen yaakaar yëpp géde rek la nekk ci sëriñ Mbacke Bousso di leen xamal ne daal fas na ko yéenee woote di ko fas yenee dundal fii fas ko yéenee ànd ak jullit yëpp nag di ñaan képp koo xam ne teewe nga guddi googu lépp lu sëriñ Touba digee ci guddi googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digee ko ci yàlla na ko sun borom teg ci say loxo xaadimul Mustafa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu